saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Yaxya Jóob Yékini ak Mohamed Ndaw Tyson ma journal ba di laaj kañ la def seenub jubilé ak quand le jubilé de Tyson et Yékini loolee mooy laaj ba depuis ba ñu génnee làmb ji ba léegi moom Mohamed Ndaw Tyson ak Yaxya Jóob Yékini amagul kenn ku ci organisé jubilé journal ba xamle mooy ñaar ñooñu làmb waru leen a fàtte ndax ay icône lañu ñoom ñaar ñépp ku ci nekk nekkoon nga fi roi des arènes moom Mohamed Ndaw Tyson nekkoon buur ci làmb ji prophète ca Pékin moom Yaxya Jóob Yékini moom i def la même chose buur ci làmb ji prophète jibile suñu papa Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi microcentral ne loolu yoon la ñoom ñaar ñëpp ko war a def rax ca dolli ne mu xame ndaw Tyson li mu def ci lamb ji nga xam ne xale yépp moo leen bëgguloo lamb fi mu ko yóbboog fi mu yóbbu kase yi ñemewut a bàyyi lamb te organisé ab jibile bu ko defee rek def na lu normalut Yaxya Jóob Yékini mi nga xam ne lu ne def na ko ci lamb bu bàyyi te organisé jibileem def na lu jaaduwut suñu papa ngay le ëppi loxo mooy diggante Bathie Seras ak Diène Kaïré Bathie Seras mi fi waxoon ne digganteem ak Diène Kaïré am na promoteur bu ko doon dox waaye Diène Kaïré moo bëggul loolu papa ja ko moom booy Kaïré la mu xam mooy xaw ma fan la Bathie Seras jële bi la information waaye ñun jotuñu benn promoteur bu mësa ñëw di ñuy wax waxi Bathie Seras ma fi woo combat Diène Kaïré ak la ñuy wax wala combat Diène Kaïré ak Amaneex ñaari mbër yooyu dama leen di remercier di leen sant di leen gërëm dama leen sant ndax nangu gu jël Diène Kaïré Amaneex ba ñu ko woowee dafa ne d'accord na Modou Anta ñu woo ko mu ne d'accord na waaye ñaari mbër yi ku ci nekk am nga droit laaj kase bala la neex ñaar ñooñu lañ ma mës wax seeni wax waaye Bathie Seras kenn mësumaa wax ay waxam ña ñu wax waxi reporté combat mooy ña ak Luc Nicolaï kaaw Luc Nicolaï génn doxal yéenam ci combat bi waaye jamono ji ko wax mu naan la combat bi reporté nañ ko reporté nañ ko te dara leeragu leen ci situation bi lamb ji di dund ñun ñëpp koy dundandoo xamuñu sax ndax saison bi dana yeggam déet kon na amateur yi patienté rek ñu xool ba xam fan la Walliné di mujjee gëtam moom Ama Baldé fu mbokkam mooy bu combat ba jotee mu indi doole indi forme moom Ama Baldé xaadiwul waaju la xaadi mu ngi ci ay entraînement yu metti bëggul kenn ko ko bett moo tax mu ngay alteeru di rey boppam moom ñu reporté combat baak ñu ñàkk ko reporté la yemale moom dafa bëgg pare ba buñ ko nee acca mu ne ci acca feneen fa ñu jëm mooy ca caatu